bopp askan woo war a woote yéene bi xayma ko ci juróom-ñaari million ak lu teg le soleil it ci ayibés bu mujj ci campagne électorale bi la xëy xayma téeméer ak fanweeri observateur u CEDEAO yu ñëw ci Sénégal ngir saytu boobaleb élection ke leen jiite di Ibrahima ak Bola Gambari yéene kaay bi ne kookaa nekkoon sous secrétaire général bu ONU l'info booba jamono di faram-fàcce fichier électoral bak lanu ci mën a xaar ñeent weeru mars a biir réew ma yoor yoor bi ne ña nga ca bët saalum sigi ak la ko wër journal bi ne duyoo sonkoog jomaay toj nañu fa le réveil gis ci sonkoog jomaay mooma réincarnation maanaam dundaat gu ageen nag jàmboñ yéene kaay bi ne sonko ba mu yeggee jomaay ca sigi coor ak la ko wër la mu wax askan wa mooy indil naa leen sama rak sama xarit di basiru jomaay fay doonte suñu jaam la waaye maa ngi leen di ñaan ngéntee ko sonko teg ca ne woteel jomaay daa mel ni mooy woteel ñaari yoon ousmane sonko basiru jomaay fay moom la mu wax mooy sigi coor a waroon na doon capital économique bu sénégal kàddu yu jomaay dafa yëngal lool Amadou Ba premier ministre ba woon di candidat wu Bokk Yaakaar ci xët gu njëkku yéenekaay booba naan jomaa ya ngay xalaata jële capital bi ci Ndakaaru yóbbu ko ci geneen gox Amadou Ba ne loola boo ci doon weccit gu bees gi nuy wax dafay firndeel ne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye danger lañu ci mim réew Amadou Ba ne li ma gën a tiital ci mbiri ñaar ñooña nag mooy bu ñuy wax monnaie bu bees maanaam sàkk xaalis bu bees Amadou Ba dara enquête ne diggante Amadou Ba ak Diomaye président kon xeex ba tàmbali na la guerre ouverte la yéenekaay bi wax Amadou Ba waxati ca booba yéenekaay ne bi ma ngay xuri candidat wu Bokk Yaakaar bi Amadou Ba tuddee ko fonctionnaire milliardaire spécialiste combine ak Cuba Ousmane Sonko ni ko Diomaye bul sonn Amadou Ba moom bàyyee maag moom ndax maag moom xamante nañu bu baax a baax waaye loolu taxut Amadou noppi ca Walf Quotidien ma nga naan nit ñuy làmbatu bés bi la jour làmb diggante Amadou Ba ak Diomaye gis ca fond commun journal bi ne inspecteur impôt yi kay fi mu ne ñoo yore débat bi ci langue politique bi campagne électorale bi rawatina Diomaye Faye yéene kaay bi ne ba mu demee Sigicoor wax na ne a doon capital économique ak culturel bu Sénégal daal dina fa yit tëkku candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi ak yeneen candidat yépp ne leen def leen seen déclaration de patrimoine ndax moom Diomaye nee lu mu nar a def la Amadou Ba moom la Diomaye ak Sonko nar nee moo ko tiital mooy sàkk bu bees lu bees it am ci campagne xamal ne Macky Sall dana ñëw ca wetam ci altineb tey jii Walf a gis ca loola xeex bu buñ ju diggante Macky ak Ousmane Sonko yéene kaay bi ne ku ca ne fas nga yéene taxaw sa wetu candidat Macky Sall mi ko defutoon tey ci altine ji la ko nar Sonko moom ba tey ma nga candidat am Bassirou Diomaye ñuy wër réew mi Le Quotidien ne Macky àndut ak candidat wër réew mi waaye dana ko fekki tey ca Kaffrine Ousmane Sonko moom sigi coorgam ne woon jokkalante kàddu googa diggante Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak Amadou a maanaam ay kàddoom gën na koo dëgëral jëmee ko nag ci Sonko Diomaye yéene bi gis ne gaaral wees wut kàddu yi yëkkati ne réew mi kenn du ko dénk ku xamul dara bala ñu lay jox réew mi faaw nga wone sérieux wone it responsabilité Macky moom journal ba gis ne ma ngay yokk doole candidat am di Amadou Ba yéene bi ne juróom benn million la jox comité électoral bu ne affiche Amadou Ba it fu ne ca Ndakaaru ño moo leen dalal gannaaw jéego yu ca Cheikh Kanté dox yéenekaay ba ne Thérèse Faye ak ña àndal fi daanu door seen campagne jigéen ñi bokk ci Macky daanoo venit duggaat nañu ci rang yi docteur Cheikh Kanté ma taf woon ca bun Abdallah Jonit yéenekaay ba ne fas na yéene campagnal Amadou Ba ngir mu am ndam ci premier tour élection présidentielle bi nu dëkmal direct news ne campagne yu Benno Bokk Yaakaar nag mi ngi doog a tàmbali idi it ma ngay campagne réew mi quotidien ne coalition dundu dalal na ko ca terrain ak APES bu Parcelles Assainies la fa idi dige mooy jàmm yëkkati it ay kàdduy canta ngërëm jëme ci directeur de campagne am rafetlu taxawaayam ca wetam idi ca vox populi ne ma ngay sant yàlla ndax bu ñuy wax naan ñi amul expérience kenn du leen jox réew mi kenn ko ca dund gu gën dund gu meilleur la dig askan wu Sénégal Thierno Alassane Sall di digge ca boobaleb journal ay hôpitaux mobile maanaam hôpitaux yoo xam ne dañuy déplacé wu fekki askan wa ne ca gox ya gën a ruqe Anta Babacar Ngom ne askan wépp rawatina ak jigéen ñeeg ndaw ñi man maay seen candidat la bëgg ci man mi la ne l'observateur gis candidat ya ne ca gone yu ndaw ya journal ba tuddee ko enfantillage des politiques maanaam bu nuy campagne di fob Sénégal ak Benno Bokk Yaakaar l'observateur it ma nga ñu yeggee tractation ya ca am maanaam tànki jàmm yanu cay dox ak ña cay wax yéenekaay na ay kilifay parti démocratique sénégalais taxawaay ba ca a ñu yeggee taxawaay a am te mooy doon arbitre ci élection bi nu dëkmal yéenekaay ba ne ñenn ca parti démocratique sénégalais googa nag rawatina ak fédération bu ndar ñu baree ngay wax ni nañu jàppale Bassirou Diomaye Faye waaye ñeneen lañu gis mooy PDS ci ginnaaw ab libéral la war a topp ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu xëccoo foofa Mamadou Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais ne am na député Pastef bu ñëw ci parti démocratique sénégalais bëgg ñu jàppale Bassirou Diomaye Faye waaye ñe newoon ca UJTL source a ñu ca bari waxi Aly Ngouille Ndiaye la ñuy wax ak ñeneen yéene kaay waaye kàddu gu mujj gi ca loola Wade yee moom maanaam président Wade ak doomam Karim booba jamono ca Le Réveil El Hadji Babou Dieng journaliste bu exilé wax mooy bu ñu ko dénkee réew mi budget agriculture maanaam mbay meeg càmm gi di élevage dana ko jëlee ci 2 pour cent yóbbu ko ci 15 pour cent Boubacar Camara ca libération booba jamono ma ngay ñaawlu napp geeg ni nu ko sàggane ne politique infrastructurelle moo ci amul maanaam jumtukaay ya ca war Mali Gakou moom naan tissu industriel bi ci boppam laa nar a suqali Aliou Mamadou Dia ne commerce transfrontalier bi maanaam njaay mi diggante Sénégal ak réew yi mu dendal loola la de la diaspora ca wetu Mamboy Diawo mi doomi Sénégal visa ñooña bu ñëwee ci réew mi daanu leen ko laaj ca Ross Béthio ga ne woon moom Cheikh Tidiane Dieye nee na mbay mu mën dundal Sénégal mooy li ko yitteel Khalifa Sall ne man jàmm cohésion nationale mooy sama yitte gu loola laay gën a sàmm Thierno Alassane Sall ne man moomeelu réew mi laa nar a sàmm ndax maa nar a doon gardien intègre et vigilant bu pétrolu Sénégal contrat yooyee ca wàllu gaz ak pétrole Thierno Alassane Sall ca l'Observateur ne lépp la nar a xoolaat xoolaat it contrat de pêche yi sëriñ boobu ca booba leb journal naan daara ji tool bi ak pénc mi ñett ponk yooya Wade mi bëgg a doon njiitu réew mi ca la nar a na ngir suqali réew mi réew mi nar dalal observateur yi jóge fu ne ci bi libération ne élection présidentielle bi nu na CEDEAO yabal fi téeméer ak ne dana bi ne na lànk ko nangu na it ma ngay samp ay laaj ci taxawaay gu bees gi mu ne meeku ci Ousmane Sonko jëm ci Macky Sall nam doon waxee ca moom yéen kaay bi gis ni waxeetu ko bugaan mi waxagul dara nag ci kan lay jàppale moom la ay ndawam di déglu cellule gëm sa bopp yéen kaay bi ne ndigalu bugaan dong lay xaar dana wax nag ban candidat lay jàppale ña ngay waxit ca booba lépp journal ne manipulation yi moom du jàll campagne bi moom jàllut nam daan demee demeewut ni tribune ne la ko waral mooy koor gee karem gi mu daje daje laas ca woole waxtu di ñu yeggee la xew ba Amadou Ba ak Khalifa Sall dajee yéenekaay ba ne accolade moo dox seen diggante muy lu ñépp rafetlu lu ñaaw la xewoon ca Denver di sénégalais yenu taaloon ak seen njaboot yéenekaay bi naka nu ca tuumaal di Gavin Seymour daal dinañu koy daan ñeen fukki ati kaso gone ga am fukki at ak juróom-ñeent yéenekaay ba ne gannaaw déggoo gu am nangu naa plaidé coupable maanaam ràññee ci kanamu ñépp ne lañu koy tuumaal ko def Modou Lo ca l'Observateur booba jamono naan lépp lu ma def ci làmb ji lépp lu ma am tey nim ndam jàpp leen ne ma guddi googa mooy sama guddi gi gën a yàgg jël ga ko gën a bett nag mooy jël gi mu am ci digganteem ak bombardier moom buuru làmb ji mu jeexal ci artu site ci bu naree xeex ak moom ca moom Modou la ñuy jeexalee ñun tey ñaanal leen kendal la jàmm dig dajee ëllëg incha allah AGT News